li man ñeel soxna soo xam ne taxiidu dana gis bërëb mu fase ko talxatan menn pase fii tuxurihaa ci biir ak laabam maa masaxaa boo xam ne loolu ko fii ci biir laab ga wa illaa bu fekkee laaloon na ko kurisu kon sidéef ko pase ci boppam alis ba dane yi yàlla daganal moom li ci gën a bañ abgadul xalaali ilallahi at talaaq kon nag buñ tuddee pasem sunna dañoo jublu ne sunna diglee kon a fasee dafa am sart yoo xam ne boo bëggee topp sunna te bëgg a bàyyi sa soxna na nga sàmmoonteeg ñoom kon defe nga na ñu diglee su sart yoo xëttee nag mu daal nekk pasem bidaa maanaam pasem moo xam ne taabuñ ko ko defe noona sart yi mooy boo koy fase na fekk mu nekk ci laab dana araam nga fase ko te fekk mu toll ci gis deret te it muy laab goo xam ne juute waccaag moom benn yoon te it nga fase ko nenn pase waaye boo ne ko fase naa la ñaar mbaa ñett nekkatul pase mu sunna digle te it boo xasee pase menn moomu mu tàmbalee iddawu bul ci tegaat meneen te idda ji jeexut ndax ndegam buumi sëy yi des na boo nekkoon fase naa la menn mu tàmbalee iddaw boo ne ko dolliwaat naa ci beneen it mu daal doon ñaar kon na ko fase menn rek ndax moom bëggee tàggoog moom rek menn ma doy na ndax bu idda ji jeexee rek du ko sañ a fayleeti menn pase ma itam da koy matal benn yoon li ki bu ne ko woon ku xaajoon am pase ci digg ba pase naa la benn xaaj ba loolu dana ko mot li ba mu doon benn waaye ci na nga ko waxe moom daal nay wàcc ndigal yu sunna tayit mu fase lépp jigéen ji bañ ne ko fase naa sab loxo mbaa sab tànk mbaa sa bopp mbaa sa ndigg ko wax rek fase naa la benn yoon li tax nag mu ne fekk jigéen ja tolluwul ci idda bu tolloo ci idda moom ni ñu ko waxee woon léegi bu ko fasee ba mu tàmbalee iddawu doonte benn la ko fase woon bu dolliwaatee beneen dal di wàcc ni ñu ko diglee ci sunna ku soxna sa doone nag koo xam ne dafa weesu gis deret mbaa da caa àggagul ba du ko gis mbaa dafa toll ci ëmb mbaa dañ ko may rek te jotiwut ak moom dara moom saa yu ko neexee rek mën na koo fase ndax ñun nga wax ku ci ne iddaam du yokk du wàññi ko bu dee nga xam di gis deret ngir mage mbaa ngir ngone yetti weer lay am bu dee ko ëmb bu amee doom rek te idda jooy jeex bu dee koo xam ne dañ ko ko may rek waaye jotewuñ dara saa yu ko soobee rek sa boobu fase ko ndax lu yàgg-yàgg moom lu iddawu sax far bu koy fase rek mu daal di mën a wutiwaat jëkkër illaa talaaqal xaydi ndare pasem mbërëk son na nanga ko tere warta ji te nga fay li jabaran ci ak forcé bu jigéen tolloo ci gis baax day araam jëkkëram fase ko su ko fasee nag tamuy fase moo xam ne mënees na koo fay li nga xam ne àggul ci ñett yoon da koy forcé ci mu fay li ko da koy njëkk a forcé ci ne ko fay lin soo fay lii kët mu tëj la kaso ci saasay saasa bu gàntoo mu tëj ko kaso bu ko tëjee kaso ne ko ay ca fay leen mbaa ma dóor la bu nanguwut a fay li mu daal di koy dóor bu ko dóoree dóor nanguwut a fay li nag attekat bi ci boppam mooy wax ne fayli naa ko soo attekat bi ne fayli naa ko bu ko neexee moom jëkkër ji bu joteeg moom ci la attekat bi wax ne fayli na ko ko su ko neexul nag na bàyyi rek ba deret ji jeex bu deret ji jeexee rek moom bu ko neexee nag fasewaat ko moo tax mu teg ci wa talliq na nga fase idu tasha ba dana la soob idu yan xatimu ba dana dog moom deret ja bu ko yoon forcé ba ñu fay li mbaa àttekat bi fay li moom faaw ñu bàyyi ba deret ji jeex bu deret ji jeexee nag bu ko neexee fase ko bu ñu nee nag soxnaam tolloo ci gis baax fase ko day araam du fekkat bu ko fase itam fase moomee dana dal araamal bi araamal fase ga du tee bu ko fasee fase ga dal bu fekkoon nag fase mooma nekk fase ñetteel moom kenn du ko mën a forcer ci fayli ga ndax ñetteelu fase moom fayli mënu caa topp faaw rek bàyyi ba idda jeex jëkkër jaarat fi rek mooy tax kooku mën koo takkaat wa haddu arkaani talaaqi li mu tonki pase arbaxatu ñeenti la ñi nga xam ne mooy tax pase am li koy tudde tonki pase mooy ñeenti ñu bëgg a tudd al ahlu aji yelloo ja wax wate moom azawju mooy jëkkër ja aw man wala ka nga xam ne aw xa ahoo dalal na pase ma bil xaqli ànd xel wal bulooxi ak ku kàllafe wal islaami ak dugg ci lislaam ponk bi jëkk mooy jëmm ja nga xam ne mooy def pase ma kooku nag mën naa doon jëkkër ja mën naa doon koo xam ne jëkkër jaa ko yebal mën naa doon àttekat bi xëy fase nag faaw mu nekk jullit ak yéefar bu fasee su yoon bi ca nekk na nekk itam kàllaf gone bu fasee kenn du ko déglu duñ jàpp ne fase na te na koo ko ànd ak sagoom ànd ak xelam ab dof bu fase itam moo ko fase wu teyam lu muy day def léeg-léeg mu tane ca ndox ga léeg-léeg mu nekk ca kon ca xam ne mu tanee moom bu fasee ñu jàpp ne fase ma nekk ànd naag sagoom rek bu fasee ñu jàpp ne fase ñu dal na walzim waralal pase ma cosaan la wa alzim la woon bi sukkurin ci ak màndi taafixin guy aji rembat xaraamin guy aji araam màndite bu araam mooy lam naan am ndox la muy màndal ñu koy tuddee sàngara bu dee ñoom dañ koy teqaleeg bu fekkee la mu def ba màndi du liquide maanaam nekkul am ndox li ci ay doom la yooyu wala lu mu tux la foofu am na teqale waaye bu dee sàngara si nga xam ne ndox la daal bu ko naanee lu mu màndi màndi donte àgg na ci mel ne dof nga xam ne xameetul asamaan ak suuf bu gisoon ab teen atin caa dugg mbaa sawara du ci xam dara it nee nañ bu fasee rek jàpp ne pase mi dal na ndax ndegam mante moo ko teg boppam lu si juddoo rek jig na ko su màndi woon nag màndi boo xam ne araamut mel ne am soow rek la naan mu daal di koy màndal wala docteur jox ko garab rek mu naan jigu ko mu mel ne ku dilimbaani mel ne ku màndi yooyu jamono moom bu fasee it pase ma du dal mokk pase wu teyam waxas duhoo akuk jubloom ponk ñaar bi mooy ba mu tudd baatu pase ba mu jublu ko bu fekkoon ne daa juum rek tudd baat ba waaye jublu ko woon a wax kon pase ma dalut moo tax mu teg ci falaat talaaxa dit am pase yël sa mu di war man ka nga xam ne wuqi na saxeef na ko allawsa baat ba bi maa ci loo xam ne laa yàlla mu du ko xam faaw daal nga xam baatu fase ba ba mu koy wax it mu jublu ko ndegam moom moo ko tey te ba mu koy wax doonte day kaf itam du tee pase ma daal ndax pase daa bokk ci yi nga xam ne duñ ko nangu kafe ko duñ ko nee nag waxal ne fase naa saa soxna te xamul lu muy tekki ndax moom du wolof mu daal di wax loola du tax ñu jàpp ne fase na faaw day aajowoo mu xam baat ba muy wax muy tekki fase te mu tey ko wax ko aw man wala koo xam ne xaga dogant na min maradin ngir tawat aw muskirin wala aji màndal xalaalin ci di aji lew aw xashiishin wala yamba aw muxaddirin wala dorog su fekkee dafa tawat mu ni mu sibbul tëñ ko di waxante rek noonu lan wax xelam nekku it bu tuddee fase it du tax ñu jàpp ne fase na ñu ko waxee woon léegi bu màndee ci loo xam ne mu dagan la mel ni mu naan lem rek lem nga bilindaane ko mu tàmbalee wax boo xaale pase it du tax dara war ko ja ba tey nag liy wax yàmba wala dorog xeet yooyu nga xam nekkuñu am ndox bu dee ci téere yu njëkk yi mel ni yi ñuy jàng moom dañuy wax ne bu ci jëfandikoo loo xam ne daa gis na ko ci jëfandikoo te bu yàq am xel moom nag mu def ko rek far am xelam tëlbati yooyu jamono su fase itam du tax fase ma dal ndax lam ci jëfandikoo li am rek la bu ci jëfandikoo nag loo xam ne ku ne xam na ne moom ku ko def tàggoog sago su boobaa bu fase itam moom fase ma dana dal ñoom dañuy jàpp ne yàmbaag xeet doro yooyu jëmm ja laab na mën nga koo julliwaale bu la neexee itam boo bëggee faju mën caa faju te bañ caa jëfandikoo lu yàq sam xel léegi nag bu ci jëfandikoo lu ëpp lu yàq xelam nag ba tax mu fase it kon fase ma dana dal waaye bu ci jëfandikoo lu yem rek loo xam ne daawul yàq xelum kenn moom nag mu yàq am xelum ba tax mu tudd fase it du tax fase ma dal loolu daal lañ njëkk ñi daan àtte ñoom xëy nag ñu yees ñi xeex gi ñuy xeex doroog ak lu ko nuru tax ñu àtte ci yenn àtte yu gën a diis ñoom dañuy wax ne ndegam loolu nekkul am ndox rek bu ko jëfandikoo jël ci lépp ba xelam demit du tax ñu gétan ko gétanu ko naan sàngara ndox ma rek lañu wax ne bu ko naaneel lañ koy gétan waaye nag ñoom bu ñu waxee ne duñ ko yemaleeg sàngara ba di ko géta nit day wax ne àttekat bi moo koy yar yar ba it àttekat ba mooy seet na ca yell mën naam sax bu seetee na ca yell lu ëpp jëtan waaye ndegam gis na ne moo ca yell rek say boobu yare ko noona aw mukrahan wala ku ñu forcé jabaran ak forcé xalaat tatliixi ca fase ga àllaf ji moo xam dañ koo fase ci tudd baat ba wal fii si ak teeyu maanaam fexe ba la mu waatoon tebbiku dafa ajan ca fase ay templiixi wala aj ga fase balaa pase maa dal ka fase def ko ci coobareem waaye buñ ko forcé ne ko waxal baatu fase ne fase naa saa soxna boo ko deful dinaa la rey mu daal di wax ne fase naa saa soxna du tax pase ma dal bu fekkee dafa waatoon nangam du ko def su ko defee rek soxnaam fase na am ko ko forcé nag ba tax mu def loolee kooku ba tey du tax soxnaam fase mel ne mu waat ne tey dem marché bu demee marché rek soxnaam fase na am ko ko yenu forcé ko bu ko marché ba du tax soxnaam fase loolu nag wute naag bu ne woon danaa def nangam su ma ko defut saa soxna fase na am ko dox digganteem ak moom nag ba loola amut ndax du yemale du ma def ak danaa def bu ne woon tey faaw mu ubbi sama bitig ba kenn mënu ci dara su ma ko deful rek sama soxna fase ma am ku ko jàpp nag tëj ko kaso ba jant bi sox xam ne mënta dem ba tijji bitigam ba tee soxnaam fase aw taaliq jooju nag mooy ñu forcé ko ba mu aj fase ma ci dara ne ma mëttoon aj fase ma mel ne am koo forcé ne ko neel sama soxna si daal bu sama bàyyi ñu gisee bàyyi ko ci réew ma rek fase na mu daal di wax loola suñu koo bañ bàyyi ñu gisee dem tax fase ma dal di xaw fi fii ci ak ragalam fii mu'minin ci aji mettiitam fii nafsihi ci boppam ka xatlihi niki ak rayam aw darbihi wala ak dóoram aw xabsihi wala tëjam kaso aw axdi maal wala jël alal mutlaqan ak anam gu mën di doon wala mutlaqan moo xam alal ja bari na am bariwut aw xaydihi wala ak tënkam jéngu ko wala tawaquhan ak doonte ak séenti rek la wa qatli wuldihi ak rey ay doomam gannaaw ba mu waxee ne buñ ko forcé ba mu fase fase ma du dal war naa leeral kon anamuk forcé ga nu muy demee mu njëkk wax nag buñ ko forcé woon ne ko faseel boo fasewut ñu rey la mbaa ñu dóor la mbaa ñu tëj la kaso kon soo boo mu fase te du tax fase ma dara war ko caa mbaa ñu tëkk ko ne ko boo fasewut ma nangu sa alal am na ñu ne alal bi néew ak mu bari ñoo ci yemoo sañ naa fase te du tax fase ma dal wala ñu tëkk ko ne ko soo fasewut dinaa la yeew dinaa la jëng mu jàkkaarloog loola kooka taxaw temm ne ko soo deful léegi léegi ma def la lii léegi léegi mook mu luñ séentu mu wër ko ne moom ki koy tëkku kaxut bu ne ko soo fasiwut bu gaawoot naa la def nangam loolu kon lu ñu séentu la su fekkee wër na ko ne moom lu mu wax lu mu nar la moom mu doon lu teew ñooye moom kon sañ naa fase te du tax dara war ko ca tase ma loolu mooy walaw tawa xooxan jële ba tey buñ ko ne boo fasiwut maray sa doom mbaa sëb sët mbaa maray sa baay mbaa sa maam mbaa sa yaay mbaa sa maam ji jigéen ba mu tax mu fase it du tax dara war ko ca ci takk-takk rek kon buñ ko forcé ne ko soo fasewut maray koo xam ne yaa ko jur muy doom mbaa sët wala koo xam ne moo la jur muy baay mbaa maam mbaa maamaat wala muy yaay wala maam jigéen wala maamaat yépp mu daal di fase du tax dara war ko ca loolu nag wute naag duñ ko ne woon boo fasewut ma rey sa mbokk wala sa doomi mbokk wala sa baay bu ndaw wala sa doomi baay yooyu moom bu fase itam faaw bu fase ma dal ndax duñ yemale ñooñu ak kum jur mbaa ña ko jur teewul nag bi sañoon duñ ko ne boo fasewut ñu rey sa mbokk mbaa ku mel ne kooku li ki bàyyi mu ndaw mbaa ñooñu bu fase rek ndax ñooñu mucc moo gën waaye nag bu fase itam pase moom faaw dana dal moom aw safan bi muroo atim wala ndoj boroom bañ mu rus dinaa diñ ci am penc koo xam ne ku am bañ mu rus la maanaam am na lu muy bañ ak rus suñ ko tëkkoo ne ko boo fasewul sa soxna dana bàyyi ba mbooloo mi teew ma mbaj la fi seen kanam te loolu ak tawaxal la gu rëy rëy kon dana sañ a fase te bu fase itam du tax fase ma dal ndoj moomu nag nekkul lu metti bu fekkoon dane ko woon soo fasewut bu ñu wéetee maa yow dana la ndoj du tax mu sañ a fase aw yu naa di wala muy woote bismihaa ci turam wa yaa taaliqu yow taaliq taaliq day firi aji fasewu maanaam jigéen joo xam ne ab sëyam dañ na fekkoon nag soxnaam daa tudd taaliq moo ko ne ko yaa taaliq te jublu ca woo rek du ko tax a doon pase te comme jublu ko ci rek du doon pase ndax daa jaar ci turu rek woo ko attaalisu aji ñetteel ja almahallu moo di barab ba pase may dal wax nga te moom azawjatu mooy soxna sa ponk ñetteel bi mooy yi nga xam ne mën nga ñàkk ci pase mooy bu ñu defee pase na ka ñu dal ci kawam kooka mënu caa ñàkk te mooy soxna ku yore soxna moo xam jullit la moo xam daa nekk ci diine yahut ba nasaraan moom jëkkër bi mu di ab jullit bu ko fasee rek fase ma dal bu dee jamono yi amee teqale gor ak jaamit noonu la soxnaam doon gor ak doon jaam ñoo ci yemoo kum ci fase rek fase ma dal waraabihu ñeenteel ba al alfaazu moo di baat ya wala ibaaratu ak waxin wa ñeenteelu ponk yi mooy baat ya ñuy wax bañ xam ne moom ñi fase na dafa am nag baat yoo xam ne moom fase dong lañ ko mën a jàppee bu dee ci wolof bu ne ko fase naa la dañuy jàpp ne fase mu am na bu ne jubluwu ci fase itam yoon du ko nangu bu dee ku dégg arabit bu ne soxnaam tallaqtuki wala anti taaliq wala anti mutallaqa dañu jàpp ne fase na moom xanaa kay la gis mooy ñu laaj ko ba xam bu dee ku jàng ci téere yi mbaa mu déglu ba xam ne bu mu seekat ñetti fase moo koy dog te bu dee ci yoonu Maalik moom bu jëkkee jekki ne ko fase naa la ñaar ñu koy jàpp ñaar bu ne fase naa la ñett dañ koy jàpp ñett ndegam moom daayam rek ci fase naa la dañ koy laaj ba xam lii suñu yéene ndax da ngaa jublu ci sa xol benn fase rek wala ñaar wala ñett luñ ko wax rek ñu àtte ko ca loola bu dee nag koo xam ne xamut ci loolu dara mu ne rek soxnaam fase naa la soo bañ jàppe ko rek nee nañu benn nga xam ne bu ëddee ji jeexut mën na ko daal di fay li maanaam delloo si ko bu ëddee ji jeexee itam ñu mën koo takkaat takk bu yees baatub fase naa la ak mu tollool rek ci yeneen làng wax yi ñu xappati la ci fase woo xam ne fase képp lay tegtale dafa am nag ay baat yoo xam ne dàkkental lañ ci fase waaye du xëppati yi ci borom ci arab yi bu ne ko anti mabtuutatun wala xabluki xala xaariduki loolu dàkkental la ci fase baat yi mel noonu nag ci ñoom ñu ko daan jëfandikoo moog baatu fase lañ yemale képp ci fase dong lañ koy jàppee bu ne jublu ko ci itam ñu jàpp ne moom la ci jublu atte ko ca loola bu dee ci wolof it may naa la sa baat dàkkantal la ci fase tey dàkkantal yu fës yu leer nañ ñi nga xam ne bu waxee soxnaam ne ko may naa la sa baat rek fase lañ koy jàppee la des nag mooy bu yemee foofu ñu laaj ko ba xam benn pase rek la jublu wala ñaar wala ñett bu dee koo xam ne xamul nag ci fase benn mbaa ñaar mbaa ñett sooy bañ jàpp ko rek benn loolaay la gën a jàppandi am na it ay baat yoo xam ne mën naa tegtale pase mën na ko bañ a tegtale mel ni mu ne ko demal rek demal rek mën na caa jublu demal fase naa la mën na caa jublu demal baa lijjanti sa mbir wala bàyyi waxtaan ak say mbokk ak yu deme noonu baat na noonu bu ko waxee dañ koy laaj ba xam loo ci jublu bu ne fase ne ko kon moom la ñaata nga yéene woon lim bu wax baax na bu ne it jublu ci woon fase it ñu ne ko wax nga dëgg jublu ci woon fase boo weesoo nag baat yi nga xam ne ñooy takkale fase bu wér ak yi nga xam ne dàkkintal lañ ci yu fës ak yi nga xam ne dàkkintal lañ ci waaye taxu leen a fëse noonu ndax mu ne see caa jublu yu bokkut ak fase sooy boo teg ca ne bépp baat bu mu ko wax te jublu ca fase rek mu daal doon fase moom la wax naa alzim na nga waral fase ma ma xas di si ànd ak jubloom bi ay laaj yi ci bu ci baat wala nawaahu ak doonte yéene woon na ko bisxini ci isxini may ma ndox ma naan aw ataxini wala jox ma lekk ma lekk ci gàttal daal baat bu wax moom jëkkër ji jublu caa fase soxnaam doonte sax laalante wut ak fase ci ni ñu koy déggee waaye lu moom la ci jublu rek fase dal nay am bu ne ko woon may ma ndox ma naan la jox ma lekk gee ma lekk wala dama la waaye lu ma diw te jublu ca fase it mu dal di koy doon aw bir rasooli wala ci ndaw la mëtt la xam ak lu mën di demee su waxee kenn ne ko lool saa soxna fase naa ko su kàddoom di daanu rek fase dal nay am kooka dem wax ko soxna sa ak kooka bañ a dem ñëwee moo soobee mu jot lu ko soxna sa te xam ne fase ni am na ba noppi aw in wasala wala ndeem àgg na kitaabu xoo mbindam ma aw xasbu xoo wala nga xam ne bogoom nga xasala am na fii ci moom su fekkee ne fase ni da koy bind waxu ko ci làmmiñ dañuy seet su fekkee ne bogowoon na ci faaw daal fase soxna si kon bu tàmbalee bind su bindee baatu fase rek fase ni dal nay am moo xam joxe na mbind ma soxna si jot te wala kilifaam wala déet moom daal ndegam ba muy bind moom dafa dogoon ci fase tey bind na baatu fase fase dal nay am bu fekkee nag ba muy bind duguutoon ci fase dana woon daay bind gisoo ceeg sama baay mbaa sama xarit mbaa keneen kooka moom li fekk soxna sa juutu ca rek ba xam lañ ci bind mbaa kilifaam jot ca fase amagut waaye nag bu soxna sa gisee nit ñi ne xam lañ ci bind wala kilifaam jot ca rek fase dal nay am mel ne fekkee soxnaam ko mën a jàng la ba muy bind fase mu ne ñu ne woon daay bind ba noppi nag gisoo ceeg sama xarit teg ko foofu rek soxna suñu jàng ko fase dal nay am te fekk ba mu bind boobu xam nga ne bëggu ci woon su amee yéene fase ba mu ne waaye aggu ci bëggu moom daal yéene nekk na ci tàggul soxnaam si waaye nag bëgguñ ci bu wér a wér bind ko waxu ko itam su boobaa kon fase amut kon nag kii fase te di ko bind na seetlu ba xam fu xolam tollu bu fekkee ba mu bind dafa dogoon ci fase moom buy bind rek baatu fase fase am na mu jàll nag joxe mbind ma soxna si jàng wala kilifaam ak mu téye ko ñooyee moom nga xam ne rek fase na su ma bind nag ci deng deng rek danaa faseen bu ma fase wala su ma bindee ba noppi diisoo ceeg du lu fekk soxna sa jotul ca mbind ma wala kilifaam jot ci rek fase amagut waaye nag bu ca soxna sa jotee wala kilifaam jot ci rek fase dal nay am aqsaamuhu ay xaajam talaatatun ñett la fi sharxi ci yoon albatt mooy tase mu dog wal daa'imu ak aji facc tumma rajhiyu topp ko jóg fay li maanaam tase mu mën a fay li xeeti tase yi moom ñett rek la benn bi mooy tase mu dog mooy bu mu séega ñetti buum la woon waaye yett yëpp dagg na dara gisu ca loolu nag mën naa doon ñu war ko fase ko muy benn dellu ko takkaat fase ko muy ñaar dellu ko takkaat fase ko muy ñett bu dee ci ci suba Maalik itam ci benn jotaay rek bu ne ko fase naa la ñett amut fay li bu idda ji jeexee du ko mën a takkaat faaw ju tëdd fi jaaraat ba noppi wax na ko ci gannaaw